السلام عليكم ورحمة الله مكين لاني ني دي لان زير لان بال حق دي لان بال نان برام سبحانه وتعالى بولي ني جيغن نيو تي المسألة رقم التاسعة من من المياه التي يشملها تعريف الماء المطلق الخامس الماء الذائب بعد الجمود سواء ذاب بنفسه أو بسبب وذلك كالبرد وهو النازل من السماء جامدة وكالجليد وهو ما ينزل متصلا ببعضه كالخيوط وكالثلج سادسا الملح إذا ذاب سواء كان عذبة أو مالحة سابعا فضلة شراب الجنب أو الحائض فإنه طهور ولو كان من الكافرين آه، من الكافرين شاربي الخمر والله أعلى وأعلم مسألة نميرو نوف ولا مندر جاي جروم نينت نبقنا تيندوخ يي لاب تمنى لابل ماتير بو سي بدون دوخ ماتير بو سي بدون دوخ لو ملني غلاس ولا نياش ولا خرم moo xam saf na xorom wala saful bokk na ci desitu ku am janaaba wala jigéen ju gis mbaax donte ne duñu ay jullit yàlla mooy ki kawe te xam lépp bokk na ci ndox yi nga xam ne laab nañu te mën a laabal ndox moo xamante ni avant muy nekk ndox aw matière la woon bu sey masala mun na doon neige wala mu doon glace wala mu doon xorom boo xam ni dafa seey ba doon ndox lu tax ndax xorom ak ndox ñoo dëkk ndox mi xorom yi bu seeyee ci ndox mi moo xam ndox mu saf na xorom wala saful xorom yëpp ndox moom mën nañ koo jëfandikoo masalan dem foo xam ni bu xorom la nga xam dafa am benn jamono joo xam ni ndox mi day ñëw am benn jamono joo xam ni doo fa fekk ndox xorom rek nga waxee ne jamono ji ndox mi ñëw xorom du fa ne boobaa ndox moomu bu ñëwee saf xorom mën nañ ko jëfandikoo bu ndox mi demee ba dem tamit mu def fa ay tepp-tepp yoo xam ni dafay saf sàpp xorom tamit mën nañ ko jëfandikoo mën na laab laab na te mën a laabal desitu koo xam ni dafa gis janaaba dafa am janaaba maanaam dafa war a sangu farat setul bu naanee ba desal ndox moomu laab na jigéen ji gis mbaax bu naanee ba desal ndox moom it laab na donte ne ñoom ñaar ñi sax ay yéeféer lañ même fekken duñu ay jullit teewul ndox moomu mën nañ ko jëfandikoo mën nañ ci jàpp nañ ci sangu farat mën nañ ci yóbbu ci toilette bi yàlla mooy ki kawe ki xam lépp yàlla defal dégg ak topp qul qawli hada wa astaghfirullah al-azim li wa lakum mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar leen baalu xaq leen ñaan borom bi subhaanahu wa taala boo leen jëggal يوجي المسألة الرقم العاشر من سؤرة جميع الحيوانات من ذلك الهر والكلب والسباع والخنزير غير نجس على المشهور من المذهب ويشترط في طهارة آثار الحيوانات والسباع أن لا يرى عند شربها آثار النجاسة في أفواهها وإن كانت جلالة وهي التي ترعى في النجاسات فإن سؤرها يكره التطهر به إلا إذا كان الماء كثيرا فلا كراهة الله أعلى وأعلم masala màndargay fukk mu ne bokk na ci ndox yu laab yi desutu bàyyi ma yu mel ni xaj ak muus ak ndong ment yi mooy lu mel ni till ak mbaam xuux su fekkee ne bi ñuy naan ci ndox mi seeni gémmiñ taxul sobe su boobaa laab na ak bàyyima yi nga xam ni foo leen fekk ñu ngi ci sobe yi seeni desit laab na waaye dañu ko sib su fekkee ni ndox mu tuuti la waaye su dee ndox mu bari la kooku dara nekku ci yàlla mooy ki kawe te xam lépp masala bi day jàngale ba tey desitu bàyyi ma yi nga xam ni mën nañ cee jàpp man cee sangu farat man koo yóbbu ci toilette bi bàyyi ma bu mel ni bu mel ni muus mu naane ci ndox mën na laab na a bu mel ni xaj ak ndogment mooy xeetu tilli yee garabu àll yeeg yooyu yëpp ndogment ak bu mel ni mbaam xuux mbaam xuuxit bu naane ci ndox ndox moom it laab na li gën a siiw ci madhabul malikiya chartal nañ tamit yi nga xam ne mooy desitu bàyyi ma yi nga xamante ni ñoom duñ leen gis lu dul ci maanaam dañoo chartal kon ci ndox mi bim ci naan fekk gémmiñam taxul sobe xaj bi wala mbaam xuux mi wala muus mi wala till bi bi naan ci ndox mi gémmiñam taxul sobe bu fekkee ne gémmiñam dafa taqu sobe nag ndox mooma laabul de fekkee ne gémmiñam dafa taqu sobe bu fekkee ne bàyyi mi nga xam ne ñoom ci sobe la ñuy dund ñoom foo leen fekk ñu ngi ci sobe du ñuy daqali du jóg ci sobe yi ñooña seeni desit laab na waaye dañ koo sib maanaam bu ñu naanee ci ndox ndox moomu mën nañ cee jàpp waaye sib nañ ko fekkee ne ndox mi tuuti la sib nañ ñu jàpp ci sib nañ ñu yóbbu ko ci toilette sib nañ sangu ci farat sib nañ ñu raxas ci sobe tamit dindi ci sobe bu fekkee ne ndox mu bari la nag lola dara nekku ci يلا ما تخملك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله ممكن لأني دلان زيارة بل الحق دلان بال أنبر رمي سبحانه وتعالى مبول جقل نيوتي مسألة رقم الحادي عشرة من الماء الكثير إذا خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن ذلك لا يخرج عن طهوريته الماء المتغير بالمجاورة وصور ذلك أن يكون إلى جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهما فتنتقل رائحة ذلك إلى الماء أو تبخر الآنية ببخور ثم يصب فيها الماء بعد ذهاب الدخان فإنه لا يضر والله أعلى وأعلم مسألة نمرو أعز ولا درجي فكك بينهم ne eh, ndox mu bari bu jaxasoo a sobe te soppiwu ko laab na ndox su amee xet te fekk li ko waral mooy medd bu ko jege wala ay kabine te dugguñu ci su booba laab na wala ndab lu defoon cuuraay ginnaaw ga ñu def ci ndox muy xeeñ cuuraay tamit laab na waaye na fekk ñu raxas ko ba noppi yàlla mooy ki kawe xam lépp dafay jàngale ba tey ñu ngi ci ndox ba tey ndox mu laab ndox moo xam ne ndox mu bari la mu jaxasoog sobe ndox moomu laab na mooy mën na sangu farata mën na jàpp mën nañ ko yóbbu ci toilette bi kii dem toilette wala kii tuur ndox mën nañu ci raxas sobe tamit bu fekkee ne dafa jaxasoog sobe te sobe bi soppiwul lenn ci melokaanam yi ci xeetam wala ci cafkaam wala ci euh, maanaam ci màndargaam bu boobaa ndox moomu laab na ci dara bu dee ndox bi masalan dafa am medd mu ko jege xar bu dee wala yooy wala am ay cabinet yu ko jege nga dugg ci biir ndox mi ndox mi di xeeñ loola masalan ndox moom teen boo xam ne dafa jege foos te foos jàllul ci teen wi ndox mi di xeeñ xeetu foos ci misaal te wóor na ni xeeti foos bi jàllul ci teen wi ci misaal boobaa ndox mooma laab na mën nañ koo jëfandikoo wala ndab loo xam ni dañ cee defoon cuuraay ba noppi moo xam pot la wala bool la wala lu mën a doon biñ ko defee cuuraay ba noppi ñu dindi cuuraay ba raxas ko xet wi des ca bu boobaa ndox mooma it laab na wala par exemple masalan nga jël butéel boisson naan ci boisson ba mu jeex def ci ndox muy saf boisson tamit laab na wala mu ko xeeñ wala loo xam ne butéel bu defoon pétrole la wala bu def essence wala yeneen xeet nga xam day yàgg loola yàqul dara ci ndox moom mën nañ ci jàpp mën nañ ci sangu farata mën nañ ci yóbbu ci toilette bi loolu mooy suñu dar si tey ku ci am lu muy laaj mën na ko bàyyi ci commentaire chaîne Aïnou Mady incha allah dinañ ko tontu. أن يلا دفل دقاق توب قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته